jotaay bi ndigal moo ko lal parce que balaa ñi koy def dañoo dem ca xalifa bi comme d'accord ci ah sëriñ bi ñu ngi leen di dalal bu baax di tuub bu baax parce que yoonu suufiyanke dafa jafe te taalibe dafa jafe te ak lu coow li bëri bëri jëriñu rek lañ bëgg ak lu ah, ñu sant yàlla bu baax nag ci bis bi nga xam ne jaamu yàlla rek moo ko tax a jóg maanaam ay xale yuy def ngir yàlla biñ koy commencé mané nañ dem ñu waxtaan ak kilifa gi biñ démé mu ñu man d'accord accord naa ngeen soppi parce que xal rek mo mëna soppi waye soppi wuñ waye dañuy sof ci lan li nga xamné mom la fi mag ñi bawoon ci lan li nga xamné mom la fi bàyyi bawoon ci lan ci li nga xamné mom la fi ara bawoon ak ñu baax ñu nga xamné ne lëggéey nañ ba aduna yépp gërëm leen lii nag sëriñ bi danañ leen leeralal balaa kàddu gudd waaye lépp dana ñëw ci kanam incha allah ñi ko sos ay ndaw lañ yoo xam ne benn pas moo leen boole mooy mahabbatu Cheikh Ibrahim ñu nekk ay ndaw départ bi application moo ko jur mais fay bi faydu la demee mooy kenn ku nekk yaa ngi ci TikTok bi da gis sa morom muy défendre baay. tasubbatu filahi wa naaji yaqsu min yadi akhi andi ci yalla moy kenn ku nek japp ci loxol moroom ma xam Lamine xam Baye Fall xam tiktok bo lañu ñu ne pourquoi pas ñun ñi nga xam na ñu bokku ñi ñuy lebalal te Cheikh ibrahim moy borom jamoro pourquoi pas ñu liggéeyal ko ci tiktok bi ñu sos association bi tuddé ko les tiktokers dana fayda serigne bi yépp coupe la rek parce que faydu dafa jafe dafa jafe waaye bu leeree rek ñëpp noppalu biñ ko demee rek ñu ne ah fokk ñu jéem naka la ñuy jéemee mooy fexe kitmaan suñ sëriñ ñu ne kon dañuy def liñ xam rek wala dañuy dellu ci njàngaleeg mañ ñu ne nañ organiser xadaratul jumaa waaye foofu la ñuy jaaree ndokkeel sëriñ bi ci teewaayam bi bi nga yegg see dama ne bagage jotaay bi de yàllaa ko yàllaa ko ndaweel ci ay aas parce que loolu la saf sëriñ bi bi nga ñëwee nekk suñu loxo na xel yi dafa dalati wala yu nekk bu fekkee am na nu muy jàngale muy mbëggeelu sewraay bi ki mën naa dafa commencé am nu muy kii ñu nekk ci loolu ba sëriñ bi joxe ndigal ñu ne nañ def ñaari bés tuddee ko 48 heures mu nekk méga xadar lu juma ak guddi sikar koo xam ne suba lañ ko bëgg a def fi ses ndax dafay indi ci suñu mbir ñu ne déedéet kooku dañuy jàng foog ñu dellu ci rek ci cosaan yi ñu ne naka ñu ne kon bis buñ koy def te muy yàlla man da ñàkk buñ ko tuddee ñu ne ah Dakar teel a ëppee doole ñu ne koo leen dellu ci cible yi nga xam ne bàyyi moo leen joxeñ ci Dakar ñu joxeñ leen parce que ku joxoon ku waa ji joxeñ da ngay noppal ñu jël bés bi tuddee ko ku mel ni sama sanga Aboubacar Ndiaye Touba ñu ngi lay ndokkeel yow ewal ngi dégg na ci ngoon bi ma jot ko mu ne dinaa ewal Touba ak yeneen gars yi benn Baye Fall tamit ñu ngi lay ndokkeel bu baax biñ demee loolu ñu ne ah waaw ku dee ambassadeur la bàyyee ko joxoñ nañ ko joxoñ ñu ne di am kan ñu ne nañ ko tuddee Cheikh Assis Ndiaye moom it bàyyee ko joxoñ ah sori moo ko fi tere teew waaye tamit bu teewee teew na bu teewut teew na parce que bëgg rek kanam yi biñ jógee ko ci koomu ñu ne tamit danañ ko tuddee ku mel ni Cheikh Mamour Insa Diop parce que tamit moom it bàyyee ko joxoñ ku bàyyi joxoñ mbooloo mu dogu ku dem ci bàyyi pare war war ko joxoñ biñ jógee ko ci foofu ne lañ ko tuddee ku mel ni Baye Am fële ca ca ca Massa moom tamit bàyyi ko joxoñ biñ jógee ca jaxaay jaxaay jërëjëf biñ jógee foofu ñu ne bis bi tamit ministre de la culture parce que man dama bokk ci ñi gëm ne culture Sénégal mooy islam man loolu laa gëm ma gëm ne patrimoine Sénégal mooy Cheikh Ibrahim patrimoine Sénégal moom El Hadj Abdoulaye patrimoine Sénégal moom El Hadj Malick patrimoine Sénégal mooy Cheikh Ahmadou Bamba ma dem na ko nag yow patrimoine lañ la dégg ak culture culture yu Sénégal man dama gëm ne ñii la tudd nañ la ciy boole ku mel ni tamit Ousmane Ndeye Dieng boole nañ ko balaa ñuy guddal ci kaddu yi danañ fi def loo xam ne pays bi moo ko baaxoo muy jàngal Alxuraan suñ paree danañ jàngal ñaari discours suñ paree ñu war a jël kaddu danañ leen ko jox

muy téeméeri kaamil ak ñaari kaamil jàng ñaari junne yaasin am beneen mbokk taalibe bu jàng 46 yaasin salaatu fàtti yi nag dem naa ba lim bi man xamatuma dugal ko ci waaw noonu la rek <laughs> kon ak iman bismillah آمن الرسول آياته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله آمن الرسول بما Hacemos سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المشير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب না انظرنا على القوم الكافرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعشر والعشر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا الصالحات وتواشوا بالحق وتواشوا بالصبر صدق الله العظيم الفاتحة ونفرش بالأنهار والزهور طريقكم بأجمل الباقات المصنوعة من الورد في أحماق القلوب ترحيبا لكم وجودكم أسعدنا ضيوفنا الكرام لم يظهر الأمل إلا إلى مجيئكم وقد عانق العطر هذه الساعة وتزينت بأجمل عبارات الترحيب والود أعزائنا سيدتي وسادتي سماحة الشيخ أحمد دام قدام الله وعزك يا ابن الشيخ إمام حسن سيسي قلوبنا ترعرع فرحا لحضوركم معنا في هذه الحفلة الميمونة كدت أرتبك لذلك علما بأن الشباب قوة حية منهمرة لتقوية بنية كل المجتمعات إنكار لا يحتاج إلى الدليل لخدمة مولانا شيخ الإسلام حاج إبراهيم يس منذ أن تولدت فكرتها سأقول فقرا لشبابنا هذا الذين اشتغلوا بإبدائهم وشغفهم لنشر هذه الفائدة التجارية العظمى على هذه المنوال كما تعرفون لكل مجموعة تتحرك في حصرنا الحالي لها أهداف معينة سنوضح هذه الأهداف النقاط التالية أولا آه يعني تكتك بلا فائدة أعرفها أولا أن نصبح نحن وسيلة قوية لنقل ثقافة هذه الفائدة التجانية ثانيا تعريفا للتقاليد وإيماءات حبيبنا صاحب الفائدة التجارية ثالثا تمسك بتراثنا الموروثة من آبائنا من هذه الفائدة التجارية رابعا إعلان دعوتنا المقدسة عن طريق التواصل الاجتماعي خامسا إبراز لجيل الحاضر وللأجيال القادمة مثالا رائعا للسير على نهج منهج الشيخ الإسلام علي إبراهيم سادسا النشر مقطع فيديوهات والصوتيات التي مليئة بالحكمة والألغاز الصوفية لشيخنا صاحب الفائدة التيانية نفعا للعباد من خلال هذه النقاط نتغمس وبالاستمرارية لإظهار العالم بأننا نحن لا تكتكبنا فيضا فيضة لن نتوقف تحت أي ظرف أو أي ضغوط كان لا يزال طائفة كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة على أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي خلاصة القول نقول لهذا الشباب حالنا حارة ونشكر غاية الشكر للذي حضر معنا وكان مقام خليفة المعزم الشيخ محمود الماهي الذي لو حضر معنا لما يحضر كما يمكن أن نسميه شيخ عبد الرحيم لأن ذاته لقلنا بأنه هو الذي كان مقام مقامه مقام خليفة شيخنا الشيخ محمود الماحي إبراهيم يس معنا من الأغيال المقدمين في هذه الفائدة التجانيه وفي هذه العاصمة الدكار مثل الشيخ سنجاي إذا قلنا آه شيخ باي هذا يمكن أن نسميه بشيخ سنجاي لأنه إذا رأيته يذكرك بشيخه سنجاي آه، آه، الذي خليفة من خلفاء الشيخ إبراهيم في هذه العاصمة الدكار لنور هذه الحضرة يعني أقصص تحية لنور هذه الحضرة الشيخ أحمد دام وجد